جلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واشكروا ربكم على نعمه يزدكم واعرفوا قدره وحقه واستئنوا بنعمه على طاعته عباد الله تفرد, تفرد الله بالعطاء والملك والتدبير ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والمسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه وتصايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والصناء عليه بما هو أهله وبجوارحه بتسقيرها في طاعته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وتفضل على عباده بنعم آناء الليل وأطراف النهار ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي للشهيد لشديد وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى المنعم وهو الله عز وجل وأما العباد فهم أسباب يجري الله النعم على أيديهم قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وشكر النعم مبني على خمس قواعد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فأولها الخضوع شاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليها وأن لا يستعملها إلا فيما يكره عباد الله قال تعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom sant goo xam ni dana méngóog màggaayam yaag darajaam ya ca moom rek mooy ka xam boppam subhanahu wa taala ñu ngi seede it ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu ni ñu koy jaamoo dañ leen tamba muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu ay yéen mbokk jullit yi maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla subhanahu wa taala yeyoo ñu ragal ko ko nan la yàlla yeyoo ñu ragal ko ko doo xam ne lenn loo xam ne ndigalam la lu dul def nga ca sekemtalayel kattan doo xam lenn luy tereem lu dul daw nga ko sekemtalayel kattan na ngeen sant yàlla ci ay xéewalam yàlla bu ngeen koy sant mu dolli leen waaye na ngeen xam màggaayu seen boroom xam leen ak xam dimbali ko xéewalam yi ci jaamu ko xam leen ne yàlla rekk mooy maye xam leen ne yàlla rekk mooy moom te yàlla rekk mooy wëlbati ca koka neex di ko jox ak di ko xañ sunu boroom nee na ndax du man maa moom bindi gi lépp ndax du man maa moom ndigal yi lépp axakay jàll jàll wa ala looloo tax ba ab jaam boo xam ne jébbalul na boroomam fu mën a toll day yi xiiwalu yàlla ci moom yoo xam ne munu koo lim mbaax gi ko yàlla baaxe yoo xam ne munu koo wàññ ma yow doomu aadama fàttalikul ba yàlla di tàmbaleeg yow nga nekk toquma ni yow ci sa biiru yaay mu fekke la faak ay xiiwal yoo xam ne suñ dajale woon mboole mi ordinateur yi nekk ci kaw suuf mënuñoo peeg xéewal yooyu ba baa ngay mat sëkk doon doomu aadama gannaaw ba mu génn la ànd ak yow di la gunge ci ay xéewal ba baalam dogaloon ci dund nga war koo dund loolee dana tax ba yow julit soo xamee ne sa mbooli mi cër sa mbooli mi kattan ci yàlla rek la jóge dana tax nga tàggat làmmiñ boobu ci di sant yàlla foo mën a toll di bàkk yàlla di tagg ay xéewalam foo mën a toll waaye loole nga xam ne mooy ay cir mu jox la ko te mën na am ñàkkul sa moroomi jaam yum ko xañ cër yooyu yépp nga tàggat ko ci jaamu ci sa boroom subhanahu wa taala loolu rek moo taxoon yàlla jox la ko nee na maa leen génnee seen biiru yaay yi xamu leen dara gannaa ba ma may leen ngeen mën a dégg may leen ngeen mën a gis may leen xel mi ngeen di xalaate lii lépp dama koo def ngir ngeen sant ma yéen doomu aadama yi waaye ay yow doomu aadama yàlla ay xéewalam yemul ci yow ci bind la gën jaa rafeti bind bu doon lool rek doy na xéewal waaye mi ngi ànd ak yow guddeeg bëccëg di sotti ci yow mboole mi xéewal ya nga xam ak ya nga xamul sunu borom mu ne xanaa gisu leen ne maa leen tàggatal ñeel leen li nekk ci kaw asamaan yi maa tàggat ñeel leen li nekk ci kaw suuf maa sotti samay xéewal ci yéen lu feeñ ak lu nëbbu zahiratan wa batina ay yow doomu aadama xéewalu yàlla munuloo koo xam munuloo koo lim xoolal fii nga toog ci biir jàkka ji daal di banque say loxo diggante bi nga duggeeg léegi ana ñaata liitar ci ngelawu yàlla gi nga daal di noyyi xoolal sa xol bi tëgg sa biir dënn bi ñaata yoon la tëgg ci biir jàkka bi ca du sa kattan xoolal leneen xoolal leneen xoolal leneen mooy sunu borom jàll wa ala minute bu nekk seconde bu nekk ay xéewala mi ngi sotteeku ci ñun bu ko daggoon ci ñun tarfata aynin ñu daal di alku ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf loolu nag mbokk ba ñu ko sunu borom defalee am na lenn lum ca def de dolli ca nee na tànk yéen a ngi sant samay xéewal dinaa leen dolli ay xéewal waaye su ngeen weddee samay xéewal xam leen ne day sama mbugal moom nekk na loo xam ne nii lu tar la mbokk sant xéewalu yàlla loolee ci jaamu yàlla la bokk fokk dañuy laaj ki nga xam ne moom la yónni woon ci ñun mu jàngal ñu naka la ñuy sant yàlla xamal daal lu jiitu ni lii di wéetal yàlla subhanahu wa taala muy tawxid bi tax a texe ëllëg du mën a mat ci jaam bi mukk lu dul day yëg ne mboolem lu nekk ci moom ci xéewal mi ngi bawoo ci yàlla subhanahu wa taala amma jaami yàlla yi yàlla subhanahu wa taala day jaarale xéewal yi ci ñoom rek waaye moom ci boppam sax xéewalug yàlla la subhanahu wa taala moog la mu yor lépp moo tax sunu borom diñu ko fàttali bañ ñu daal di dagg jaamu gi yemele ko ca ña nga xamee ne ñooñu jottali xéewal gi mu ne xam leen nag ne lépp lu nekk ci yéen ci xéewal ci yàlla la jóge loolee mbokk ba nga xamee ne am na sooy déglu tey rajo yeeg télévision yi di dox tey ci mbedd yi ak yéemu dana la dal mooy lu bari ci doomu aadama yi lu ñu yaakaar dañ naan ñi ngi yaakaar ci barkeb diw lu bari ci doomu aadama yi heure boo xamee ne xéewal bett na leen dañu naan jërëjëfa diw diw amul moroom ci loo xam ne wallahi yàlla nattoo na ma ko dugg ci benn oto ñuy daw xaaju guddi dema dema dem bee ci digg àll bi waa ji lan yoroon ci essence sa di jeex jaaxle tar lool yàlla dogal ñu dajeeg benn camion mu daal di wax ak moom camion bi daal di ñuy dimbali may continuer mu daal di dugg ci ah biir oto bi daal dina sëñ diw amul moroom mu ne ko ma sëñ bi te ngaa sant yàlla mi ñu bind bind borom camion bi dajalu ñu fii waaye da ngay gis loolee da koo naqari ba baa ñu yëg si Dakar waxatul ma wax loolee mbokk da ngay gis mooy benn échantillon la mooy lu bëri ci doomu aadama yi heure bu leen yàlla bettee xéewal kañu ajoon seen xol jàpp nañ ne lu am moo ko indi loolee da ngay gis ne musiba mënul paase loolu su ko defee loolu la ñuy dem di ko topp ba da ngay dégg ma diw la nga def maa ngi sant diw am na ci ñu yegg sax bay jàpp ne ñoom yàlla da leen bind ngir ñu jaamu keneen ku dul ñoom loolee mbokk mënu koo musiba mënu koo paase jullit lépp lu la dikkal ci xéewal ak ci ko mën a jaar xamal ne moo kay liggéey ca poste ba ñu daal di koy jox benn lettre mu jottali la ko ñoom ñaar rek a yem laa hawla wala quwwata illa billah amul ku am pexe ak kattan ku dul yàlla naam su dee ne xéewal bi yàlla jaarale na ko ci moom sunu borom subhanahu wa taala bokk na lam gërëm mooy la yonent bi alayhi salaam wax ki def njekk jëm jëme ci yéen seet leen njekk gu tol noonu ngeen delloo ko ko su dee mënu leen koo delloo njekk ñaanal leen ko yàlla ba mu yëg ne delloo ngeen ko njekk googu loolee mbokk loolu la doomu aadama war a gëm amma sant gi nga waroon a sant yàlla nga jàpp ne xiiwal gi kenn keneen ku dul moom moo ko def wala tiis wi keneen ku dul moom moo ko teggi loolee musiba munul paase loolu su ko defee naka la ñuy sant yàlla la nga xamee ni nii borom xam-xam yi peeg nañ ko ci sant yàlla mooy njëlbeen yégal ne xiiwal gi ci yàlla rek la jóge heure boo jàppee ne keneen moo joxe xiiwal gi rek weddi nga yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas nañoo toog maral ñu xëy xëy guddi ga mu fanaanee taw mu xëy na sahaaba yi mu ndax xam ngeen lu seen borom wax ñu ne ko ah yàlla ak yonentam moo gën a xam mu ne xëy na sama jaam yi ñu fedd li seen gëm ci man waaye xam xëy na sama jaam yi ñoo xam ne weddi nañ ma ña nga xam ne nee nañ ñun day mutir naa bi fadlillahi wa rahmatihi ñun day tawlu nañu ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem ñii de ñooy jaam yi nga xam ne gëm nañ ma amma ñu ne ah man kay ba ma gisee biddu sàngam laa xam ne taw bi dina ñëw ñooñu ñooy ñi ma weddi daal di gëm li nga xamee ne mooy ay biddiw loolu mbokk lim ñuy jàngal mooy kon nañu yëg ne bépp xéewal bu ñëw no doon daa jóge ci sunu ñaq bopp wala benn waay moo ñëw jox ñu ko wala sunu baay daa dee ñu donn ko ci moom mboolem xéewal yooyu yépp xamal ne benn buntu dong la bawoo muy ci sunu borom subhanahu wa taala ñaareelu jéego bi mooy bi xéewali ñëwee gërëm ci yàlla tagg ci yàlla daal di ci sant yàlla mbokk tey da ngay gis li ëpp ci doomu aadama yi bokk na loo xam ne tubaab bi jàngal nañu ko mooy fu ñu toll di jàmbat waa ji cadre la bii fayu un million waaye foo ko fekk ma ngay jàmbat waa ji yàlla wërsëgal na ko kër wërsëgal koy soxna ay doom ak otoog lu ne sax am na ko waaye foo ko fekk ma ngay jàmbat loolu mbokk bokkul ci sant yàlla fa amma bi ni'mati rabbika fa xadis su la yàlla xéewalee sant ko tuddal ay xéewalam ba nit ñi yëg ne yàlla xéewal na la nga sant ci yàlla loolee da ngay gis ne mbokk moom mooy lay di ñaari lu jéego bi waaye ñetteelu jéego bi yàlla moom nga xam ne mboole mi xéewal ci moom rek la jóge da nga ko bëgg bëggeel goo xam ne doo ko bëgg keneen ku dul moom te loolee da ngay gis ne yéeféer yi yàlla doon yónni ay yonent maadaama dañu jàppoon ne xërëm yi ñuy toroxlul ñoo tax xéewal wàcc ci ñëw xërëm yooyu lañ gënoon a bëgg yàlla moo tax sunu borom ne wa min annaasi man yattaxisu min dunillahi andaadan yuhibbuunahum ka hubbillah walazina amanu ashaddu habban lillah amma yow julit yàlla ngay gën a bëgg lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy baax baax li nga koy bëgg-bëgg da ngay xam ne jaamu yàlla la la jaaroon ci ay loxoom ñëw ci yow ci yàlla rekk la jóge moom amul benn xarf bu mu ci créyel boppam looloo tax ba kon yàlla moom ngay gën a bëgg lépp waaye ki nga xam ne it mooy borom xéewal yépp gaa yi wala fi ñoo naan ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa yàlla moomu dañ ko war a toroxlul am kersaam ba xéewal googu ñu daal di cay ñu daal di koy jéem a faye ne ah comme de yàlla defal nga ñu li baax ci ñun defal nga ñu li ñu bëgg ñu nit la nga bëgg dañ ko jéem a def looloo tax ba nga xamee ne nii la mujjoon ci jéego boobu mooy nga jéem a tàggat xéewal yàlla yooyu yépp daal di koy teg fi neex yàlla subhanahu wa taala la jiitu ci xéewal yi mooy sa jëmm ji góorgóorlu lépp lu ci nekk ci xéewal teg ko fa neex yàlla subhanahu wa taala bul seetaan lu neexul yàlla bul déglu lu neexul yàlla bul dem fu neexul yàlla bul jël lu neexul yàlla loolee mbokk da ngay gis ne moom mooy sant borom bi subhanahu wa taala loolee nga xamee ni ni moom la yàlla dénkoon fami bi yàlla mayoon xéewal yi gën a màgg ci kaw suuf moo tax gaa yi xam ngeen fami boobu mooy ban mooy aala daawud daawuda alayhi salaam la yàlla mayoon nguur daa di koy may la nga xamee ne mooy ak yonent may ko doom joo xam ne muy suleymaan la ko yàlla joxoon ci alal musu ko musu koo jox doomu aadama te dootu ko jox doomu aadama bi ilaa yumi diin loolee bañ ko defee ñoom de yàlla ñu nettili ne qaala alhamdulillahi rabbil alamin daawud ak suleymaan wax nañ alhamdulillahi rabbil alamin muy sant gu départ ci làmmiñ waaye ndax fa la yàlla yem ak ñoom déedéet sunu borom mu ne i'malu ala daawuda shukra ay yéen jabatug daawuda jëf leen ni nga xam ne mooy ak sant moo tax naam dañu santoon yàlla daawuda moomu ëppoon ay xéewal yonent bi alayhi salaam nee na moo dàqoon a jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi naam yonent yi ko ëpp gënoon a sell jaamu yàlla bari na ulul azm ñoo ko gën téeméeri yoon waaye bu dee rek baril ak jaamu yàlla def ay effort ci jaamu yàlla yonent yàlla daawuda moo ci ëppoon ñëpp yonent bi alayhi salaam nee na da daan woor tey ëllëg mu dok yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na guddi gi da daan taxaw ceeru guddi gi di ko naafila daa di nelaw dana taxaw li nga xam ne mooy génn wàllu guddi gi di ko naafila daa di nelawaat ceer ba daa di taxawaat la nga xam ne mooy sixième ba gannaaw ba yonent yàlla daawuda la ko yàlla wërsëgaloon mu daan ñaq di ko liggéey ñetti xaaj la ko daan def benn bi mu daal di koy jox waa këram beneen bi mu jox ko miskin yi beneen bi mu investiraat ko te la nga xam ne moom lay liggéey te loolu mu daan def fanaane naafila dëkke koor yonent bi alayhi salaam nee na it da daan dëkk jihaad te bu daan jihaad du daw mbokk li da ngay gis ne nim matale woon jaamu yàlla ci guddi ci bëccëg digganteem ak njabootam digganteem ak masaakine yi waaye digganteem ak noonu yàlla yi ci jihaad ak ñoom lii mbokk moom mooy sant yàlla su ko defee bu ñu bëggee sant yàlla fokk ñu delloo baas yeeg sees yi nañ delloo nag yi tuur kaddiri kafe yi nañ bàyyi tëgg meeg fecc mi waaye nañu xool la yàlla bëgg te ñun ñu daal di koy def lum ñu may ci xéewal ñu sant ko ca loolee mbokk mooy sant yàlla gu mat sëkk xam leen nit ne sant yàlla balaa mat cib jaam day boole di ko sant ci ay xéewalam loolee ak a yomb waaye day boole di ko sant ci ay nattoom loolee lu xaw a jafe la mooy bu yàlla tegee ci yow nattu santal yàlla xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na day yàlla bu yónnee ay malaaka ñu jël doomu jaam bi dana leen laaj ma ndax yéen jël ngeen sama doomu jaam bi ñu ne waaw jël ngeen meññatu xolam ñu ne waaw yéen sunu borom ne leen waaw lu mu wax ñu ne moom day xamidaka wastarja moom day ma nga lay sant di dellu ci yow mu ne tabaxal leen ko ci àjjana kërug cant gi loolee mbokk lu ab jullit war a gëm na am su dee da nga am doom bu dee mais am na dem naa ci benn jigéen di ko jaale ci doomam ji dee daja faak beneen jigéen mu naan ko muñal wallahi su doon am naa tey ci kaw suuf foo xam ne dañ naan bàmmeelu doomu diwlu rek danaa kontaan mooy sëy na ba màggeen musta am doom loolee kon heure bu yàlla tegee ci yow nattu fàttalikul ñi nga xam ne yaa leen tane suñ sañoon am natt bu toll ni bi nga am ca bañ yor tegee ko waaye fàttalikul it la lay xaar ci àllaaxira loolu moo tax ba ab jullit day sant yàlla ca la ko neex day sant yàlla ca la ko naqari loolee bu jafe jafewul ci yàlla yal na yàlla defal ñu ko defal ko bépp jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أمرنا ربنا أن نقول بعد حمده وثناء عليه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمراد بنعمة هنا نعمة شاملة لخيرات الدنيا ولخيرات الآخرة التي لا تنفد وهي الأهم ولاحظ أنه قال أنعمت عليهم فلولا إنعام الله ما اهتدوا ولولا فضل الله ما ثبتوا على الهداية فالمؤمن ينسب ما به من نعمة وما عنده من طاعة إلى ربه ومولاه عز وجل ولا يزعم أن ذلك من حوله وكده وجهده قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أيا مكجلت ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko gërëm te di ko dimmini ko di ko seede moom dong mooy yeeyoo ñu jaamu ko di ko ñaan mu julli ci sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ñaka nangooroy bi ila yumi din sunu borom mi ngi ñuy wax kenn ci ay jaamam ñu koy wax luqmaan nee na luqmaan day moo ko joxoon xikma xikma moom la tubaab di wax sagesse mooy mbir mu ne nga teg ko fa mu war a tege mu ne joxoon naa ko xikma ne ko ay luqmaan santal ñeel yàlla koo xam ne yaa ngi sant day yàlla rek koo xam ne nii yaa ngi sant day sa bopp rek nga santal amma ko weddi sa borom yàlla moom doy le na ci ay jaamam ay yéen mbokk jullit ñuy fàttali ko leen li ñu sunu borom sant lu mu néew ne fukki yoon ak juróom ñaar ñu koy wax ci bés bu nekk borom bi sant nañu tagg ko ca fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin tagg ko bàkk ko waaye tagg boobu bàkk boobu lépp lan lañ ci bëgg mooy jàkkaarloog yàlla na ko ah yàlla de ñun yow dong la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbali ko léegi nag yàlla ñi nga lay ñaan mooy yàlla nag ñu teg ci yoon wu jub wa yoonu ña nga xam ne xéewal nga ci ñoom ma gaa yi ndax ñi yàlla xéewal ci ñoom mooy président yi ndax ñi yàlla xéewal ci ñoom nga ñaan bokk ci ñoom mooy généraux yi ndax ñi yàlla xéewal nga ñaan bokk ci ñoom mooy milliardaires yi laa wallahi la ñu yàlla sant ñu koy ñaan lu ëpp fukk yoon ak juróom-ñaar bés bu nekk moo gën a màgg président moo gën a màgg milliardaire moo gën a màgg général loolu mooy xéewal gi ëmb xéewalu àdduna ak alaxira mooy xéewal gi lay jural ngërëmal yàlla ci àdduna xéewal ga lay tabbil ajjana yowmal qiyaama loolee mooy la nga xamee ne moo taxoon sahabatul kiram gedd seeni alal gedd se gedd seen njaboot gedd seenu dëkk daa di dem gàddaay fi sabilillah ngiree sàkk ji ko mooy lan mooy daa di sax ci yoonu yàlla wi xamlal ne doomu aadama la gën a màgg ca la ngay am ci kaw suuf mooy sa diine heure boo demee ba ak sàkku nguur tax nga sànq sa diine wala alalu àdduna tax nga sànq sa diine wala bëgg ab sëy tax nga sànq sa diine wala dem bitim réew tax nga sànq sa diine yow yaay ka jëndee ceenu or ak la nga xam ne mooy bantub caxat loolee mbokk bu ko def mukk la gën a màgg ci li nga am ci kaw suuf moom mooy sa diine looloo ko nar a xañ rek bàyyi loolu ndax loolu mooy xéewal gi gën a màgg waaye xoolalit bi ñu yàlla subhanahu wa taala di wax ñu ñaan xéewal gi mooy def na ña nga xam ne xéewal nga ci ñoom loolu muy wane ne ñoom kat lañ nekkee nekkul lu dul mbaax gu leen yàlla baaxe même buñ ca defay effort it yàlla moo leen ko baaxee bu dul woon ak yàlla du ñu jub muy benn xam leen ne ñi yàlla daan yónni ñu nekk ay yonent heure bu leen yàlla daan yónni li ëpp ci ñoom dan daan nekk fii dalaalin mubin mooy société bi day yàqu à cent pour cent waaw bu dul woon ak mbaaxug yàlla ñoom nan la ñuy mën a jube loolee kon yàlla moo leen jubal waaye ña ña leen toppit yàlla moo leen jubal loolu muy benn waaye mbokk jub ci yoonu yàlla xéewal la de waaye xéewal ga balaa mat balaa tudd xéewal danga tey sax ba dee ca képp koo xam ne xam na siraatal mustaqim di jaamu yàlla pendant cinquante ans ci ne ko yàlla bëggee waaye avant muy dee mu jeng yoon wa kookee perte na àdduna perte na alaxira loola na nga xam ne mooy jubal la ci yoon wi daa di lay saxal ci yoon wi loolee mbaaxug yàlla kese la looloo tax ba ab julit dana boole ñaar yi mooy lépp loo xamee ne nii ay xéewal yu nekk ci moom da koy sant yàlla waaye bépp jaamu yàlla bu mu jaamu yàlla da koy sant yàlla subhanahu wa taala julit boo jullee santal yàlla boo waree santal yàlla bu la war sëgalee nga santal yàlla boo génnee sarax santal yàlla lépp loo xam ne def nga ko ci lu baax xamal ne yàlla subhanahu wa taala moo la ko baaxee loolu moo tax ba kaw kaw ya ba ñuy doog a tuub ñëw dugg ci lislaam di fëgg seen dënd naan yonent bi war nga ñoo considéré ndax ñun gëm nañu la topp nañ la sunu borom mu ne déedéet bu leen puukare woo seen lislaam bal yàlla kay mooy puukare wu ci yéen ci njubal gim leen jubal ci diine looloo tax ba ku nekk boo jullee wala foo mën a toll yéegal xéewalu yàlla bi mu la boolee ci jurit ñi nga koy sante yàlla gaa yi sa yaay tudd Fatima sa papa tudd Muhammad nga juddoo biir Kaaba ga taxul nga dugg ci lislaam lu dul mu neex yàlla ana doomi yeneen ci yàlla nuux ana baayu ibrahima alayhi salaam ana abi taalib mi yoroon sunu yonent muhammad alayhi salaam ana abi lahab mi nga xam ne ba yonent bi juddoo jaam ba ko waxoon ne muhammad judd na ah da ko goreel mu ana ñooñu ñëpp loolee kon yow boo juddoo quatorze siècle gannaaw yonent bi dëkk lu ëpp juróom-benn kilo juróom-benn junniy kilomètre ak moom yàlla boole la ci diine ji loolee xéewal la boo ko war a sante moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala daa di ne moom mooy woote ila siraatil mustaqim wallahu yaddu ila daari salaam mooy woote jëme aljanna woone mboole mi jaamam waaye mooy tànn ñakkate neex dugal leen ci aw yoonam wallahu yaddu ila daari salaam wa yahdi man yashaau ila siraatil mustaqim ay yéen julit yi sunu borom yàlla mi ngi noonu mooy ki xéewalam matale mboole mi jaamam moo moom mboole mi xéewali àdduna ak alaxira xamal ne yowma alqiyaama mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay a wal amr yowma idin lillah amul kenn ku fay moom benn xéewal buñ lay sante bal lépp sunu borom moo ko moom borom boobu ci baaxam waxuma ay gaayam moo leen may waaye moo may ba may ay noonam noomam noonam noonam yi ka weddi noonam yi rey ay soppeem yàlla moomu ci mbaaxam moo leen di jéggal yàlla moomu ci baaxam moo leen di yërëm yàlla moomu ci baaxam mooy ka nga xame ni nii moo matale lépp xéewalu àdduna loolu moo tax ba jurit bàyyil xel sa boroom nga la waay xamal ne cant gi nga ko yoral mënoo koo matal góorgóorlul bancaa boole keneen kudul moom waaye xamal ne sa boroom mooy ki mattale lépp loo soxla sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn guddi lu dul ne sunu boroom dana woo ay jaamam ee yéen samay jaam ana kan moo may ñaan ci yéen ma may ko ee yéen samay jaam ana kan mooy tuub ay bakkaaram ma jéggal ko ee yéen samay jaam ana kan moo may woo wallu ma wallu ko loolee sunu borom du deñ di ko wax xaaju guddi xaaju guddi gu nekk baba la nga xamee ne mooy fajar di xar mu lay wane ne yow doomu aadama waxtu woowu war ngaa jóg balaa fajar xar jéggulu say bakkaar ñaan say soxla ñaan yàlla mu teggile la nga xam ne mooy say tiis ay yéen mbokk julit sunu borom boobu moo baax a baax a baax a baax ba soo ko ñaanul sax mu daal di lay mere mooy borom xéewal yi soxloolu ko dara ñun rek a tax mu def ko boo ko ñaanul sax mu daal di lay mere loolee kon war nañoo ñaan ay xéewalam waaye suñu paree it ñu daal di sant yàlla ci ay xéewalam sant yàlla wóoroo la wóoroo caa doyloo say effort waaye kaay ñu delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ak kenn ci waa islaam muy Muaz ibnu Jabal ca yonent bi ku mu waxal ci sahaaba yi moog mu wax ak waa Amérique ak waa Chine ñépp a yem waxoon na Muaz man day dama laa bëgg lool bul fàtte mukk heure boo jullee ba pare nga ne yàlla yal na ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla yal na ma dimbali ci ma lay sant yàlla yal na ma dimbali ci ma jaamu la jaamu gu rafet ngal la waay mbokk julit wattu leen lii ngeen góorgóorlu seen kemtalayl kattan xam leen ne la nga xamee ne tey jii dañ koy def naan dañu woote ngir sant diw wala sant diw loolee bu leen ca bokk loolee bu leen ca dem sunu borom yàlla ñépp a ko yoral ak cant ca la nga xamee ne mooy sa wàll ca cant googu mënoo koo matal ngal la waay bul dem di dimbali keneen ci ak santam ñun ñépp war a sant yàlla nañuy war a sant yàlla wax nañ ko ñaar la mooy xéewal yépp delloo loon ko fa neex yàlla gannaaw ba xam leen la gën a màgg ci xéewal mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leen ci ba baa ngay dajeeg seen borom subhanahu wa taala yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy fàttaliku yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy sant yal na yàlla dimbali ñu ñu jaamu ko jaamu gu rafet yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy fàttaliku yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy sant yal na yàlla dimbali ñu ñu jaamu ko jaamu gu rafet yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy fàttaliku yal na yàlla dimbali ñu ci ñu koy sant yal na yàlla dimbali ñu ñu jaamu ko jaamu gu rafet subhaana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin